رسول الله رسول الله حبيب الله حبيب الله نبي الله gàmmu gi du ñu créer ay postes avancés fépp fu ñu xam ni nit ñi ñu duñ fay daje di fa bare moom la ñuy wax ay postes avancés du leen di fekk si leen faj urgence yi fi ñu leen di traité

bon am fi à peu près lu sëpp nag coono la choona gamu ak grippe ak tension mag ñi ñuy jóg am fi ay ñetti ñenti diabétique yo xamni ne contrôlé leen hier jox leen rendez-vous le matin on les suit du ñuy si profito comme gamu gi la ñu jël leen sen sucre bu ñu yéwo bu ñu agné deux heures après ñu jël leen que bu ëllëgee aussi ñu ñëwaat ñooñu du leen di top bom tension yi tamit non leen di def ñetti fa ñu def ak ñun du ñuy ñëw matin soir ñu leen di contrôler jox leen benn fiche bu nee nag ba dem ñu jox leen garabu weer daan ci am nag tuuti siik wala saak ndax ku jógee Richard Toll nga gis docteur yomb na la wala nga dem jënd benn comme paracétamol mais ku jóge jëndeer sa gannaaw Richard Toll si ruq yoo xam ni gis docteur daf lay jafe wala euh, am sax pharmacie boo ñëwee daf lay jafe ñun boo ñëwee na jox traitement weer loolu nag sikki saak bi daal foofu la am amul ku jóge Caaroy laa jóge Dakar wala Thiès laa jógee ngis médecin yomb na la

nous faisons que nous sommes tel que celle-là, elle a fait des années avec moi. Hein. Madame euh, aussi, elle est là avec nous depuis parce plus de 10 ans. Nous sommes nous fixes. Mais nous sommes fixes. Nous sommes fixes. Nous sommes fixes. Nous sommes année à l'UGB. Nous sommes fixes. Nous sommes fixes. Nous sommes fixes. رسول الله رسول الله حبيب